asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di wax ne Ahmed Cissé moomu wax njomb yi mu wax foofu ci Sénégal ngeen ko tey jii di talaata mu ngi nii Gàmbi léegi léegi la jaar fii ci koñ bu ñoo wax Latir Kunda mu ngi noonu gannaaw buñ jullee tàkkusaan ba pare daal la ñëw taxaw ci benn place ci carpinterie foofu la doon defar ñu taalu ak boo yooyu seen mbokk la Katim Cissé waaw nataal boobu maa ko fi dugal muy Ahmed Cissé moomu léegi léegi la jaar suñ boori place fii sama boori place fii la jaar léegi léegi yàggul dara na buñ jullee tàkkusaan ni ba pare la fi la fi ñëw taxaw si benn place ministre foofu la defee euh, nitaal yooyu ak xale yooyu xam naa ne coow li def na li mu def ba pare daw nag dikk dugg ci Gàmbi fu ne mu ngi noonu Gàmbi